yéenekaay yi ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf réew mi riggal nañu ci Ousmane Sonko coow meneen Ousmane jugati mu di maître Ousmane Ngom ministre intérieur ba woon yër leen xët mu njëkkal observateur Ousmane Ngom dafa def déclaration ne bëccëgoog 25 mars 2012 deuxième tour présidentiel yi bu dul woon ak moom Ousmane Ngom Wade du woo Macky Sall Wade yéene moo doonoon même suñu ko gañee mu ngoy ci nguur gi maître ma ko xe Abdoulaye Wade li ma ci Wade tegal mooy du ma ko def ma fàttali ne ko yaa fi ne woon doo def lu fi yis Abdou Diouf li mu defoon ca la ma dàqee ma génn pale ba Ousmane Ngom ne ba ma yeggee sama bureau ca la sama téléphone sonné ma yëkkati muy Abdoulaye Wade mu ne naa ko wutal numéro téléphone bu Macky Sall Ousmane Ngom ne budul woon ak man Abdoulaye Wade du woo Macky Sall Samuel Sarr nañu Ousmane Ngom wax nay kàcc yëf demewul noonu dafa falsifié histoire nekkoon ci bureau président Abdoulaye Wade keneen raxuñu 16 Karim Wade ñëwee fekk si ñu fa ay 18 heures 30 Samuel Sarr ne Abdoulaye Wade wax na Mansour Cissé Mansour Cissé ne ko Mamour ko ne na ko wol ministre intérieur Ousmane Ngom ngir mu xool yëf nan la tëddeeg tendance yi ñetti yoon Mamour Cissé jéem na ko Ousmane Ngom ci sama kanam mënul fexe ba jot ko ay 19 heures 30 ñetti général dugg si ñëw fekk Abdoulaye Wade fi mu toog bëggoon xel daal lu tukkee ci urne yi rek man Abdoulaye Wade danaa ko respecté danaa ko jëfee Samuel Sarr nañu ba ñu demee ba vingt et ca laa nekkoon nag waxtu dugg ci l'histoire jot na wool téléphone Macky léegi boo bëggee def lu raw li fi Abdou Diouf defoon ca la ñu woowee nañu moo ñu jox kii di Macky Sall jël téléphone bi Karim Wade wax ak moom ba noppi jox ko bàyyam Abdoulaye Wade Le Quotidien nañu xalaas benn coup téléphone téeméeri dégg-dégg maanaam woote 25 mars 2012 doon ko ca félicité histoire bi bari nay version ne Ousmane Ngom nee moo ne Abdoulaye Wade wol Macky Sall Wade bañ Samuel Sarr ne bés boobee Ousmane Ngom tànkam tegewul ca palais ba Mamour Cissé ne Karim Wade moo joxe numéro bu baax bi ñu jotee Macky Sall la si nañu Ousmane Ngom weddina Samuel Sarr ak maître Babou moom jiital libéral ca kanam nee kii di Samuel Sarr waxi nit kuy naax lay wax ki nga xam ne moo di maître Babou li mu wax nag ànduma ci te ba ma koy wax daa amooni seede ndax Souleymane Ndéné Ndiaye mi ngi toog Ousmane Ngom xii toog ci xët mu njëkk l'Observateur ne ñu fa li mu xam ci réew mi bu dee téeméer la benn rek bu ko waxee réew mi tas ñu tase yi ci populaire waa coalition Manko Wattu Sénégal nee nañu dañuy plainte contre X plainte Petrotim plainte Alioune Sall plainte Frank Timis ak Cosmos Energy ndax nee nañu Sénégal ñàkk na juróom-benn téeméeri milliards yoo xamante ne ji nguurug Sénégal moo ko octobre mars mu di doxum ñaxtu bu ñuy fas yéene gisuñu ku leen koy tey def tir bi nañu coowal pétrole bi gaz bi pënd bi wuréegul waa man ko wattu Sénégal nee nañu juróom benni téeméeri milliards Sénégal ñàkk na ko ci wàll woowee ndax doxalin wu bon loolee waral ñu fas yéene plainte Timis Corporation ak Alioune Sall wal faj nañu ku jëg politique gi yamuñu rekk ci Alioune Sall mag ja Macky Sall la ñu bëgg mu taxaw ci kanamu askan wi leeral li am ci contrat bi wax ci réew mi le témoigné bi yokk nañu sawara yi ci ba léegi ma ngay gën di law lawi yëf yi fayagul ci nañu waa front pour la défense du Sénégal man ko wattu Sénégal Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal waxam joojee gaañi faale ko dafa mel ne ku ñuy dëkkoo la mu ne woon ku fi waxati lu wóorul danañu la topp ñoom ne nañu Boun Dionne waxam ji ngelawi kese la ci gàttal liñ ko jàppe mooy waxi picc mu daano cib saret ki wax waxi nit mi ngi ko waxee ci direct info honorable député Seydina Fall Bougazeli moom la yéenekaay bi Aïda Ndiong li ko tax a yegg si fii la ci am yëpp du dara lu dul pexey Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye doon fexeel Aïda Ndiong ak di jéem a fayantoog moom moo ko jural li muy dund tey Bougazeli nañu ndekam chef opposition bi le président Macky Sall mën a gracier rawatina Aïda Ndiong waa microcrède jommi nañu bi leen la Sénégal ab informaticien bu doon liggéey ca kër ga la ñu dàq waajoroñ fa juróomi million ca kees dem ak moom pétrole bi day eh, fa mu jëmee Sénégal gii ma ne la amul ndox de mardi daale termine yéene kaay ne Sénégal day waaw ma ne lu ëpp kon juróom benn téeméer ci ay milliards la ñàkk nag kon ca pétrole baax mardi daali la ilaha illallah ma ne bu ñu sukkandikoo nag ci wattu Sénégal gële de opposition ba le populaire ne ma ne la opposition ba day danañu porter plainte nag kon ala xam gile danañu porter plainte tamit pétrole dim danañu porter plainte Alioune Sall ak Franck Timis ak Wangdun Wang ak Cosmos énergie gilée ndax ñoo ñàkkaloo kon sénégalais yi lée loo abu juróom benn ci ay milliards laa la wax laa ilaha illallah ngir ñeneen kon daal di cay tedd laa la wax ma ne la gis nga gouvernement bi waaw dañ leen a tuumaal ne dañuy liggéey ak ay société yoo xam ne kon ay coxeur lañ ay coxeur biir sax wal fajri ne ba daal la ñu waaw mooy gis nga président Macky Sall mi lée def na de maa la ko wax te erreur nag bu la erreur la ma ne président Macky Sall kon def na faute bu rëy giraawaali waaw waaw bu ñu sukkandikoo ci lé président tekki nee na président Macky Sall ci boppam ñaari décret la signé 2012 596 ak 2012 597 ngir suñuy teenu pétrole yi nga xam ne nag ñoo nekkoon ca Kayar offshore profond waaw ak Saint-Louis offshore profond ma ne la gis nga pétrole boobee waaw contrat day lan la ngir jeex pétrole ba waaye tamit paccoo ba marti Italie yaa ilaahi la la waaye tamit day tuumaal nañ président Macky Sall tamit ak gouvernement ngam bii ne dañoo sàmmul défendre benn yoon intérêt wu askanuk Sénégal gi lée te wàllum constitution bi di caatum réew mi laa la wax Mamadou Lamine Diallo ci Walf Fadjri ne waxtu wi nag jot na ngir président Macky Sall ci boppam waaw daal di wax ak askanu Sénégal laa la wax waaye tamit daal di leen jéggalu jéggalu waaw waaw ndax li mu bàyyi rakam ji la di Alioune Sall daal di dugg na kon ci coowal pétrole bi lee Alaaji Malick Gakou ak ña mu àndal watu Sénégal googu te tribune yéene kaay ak Walf Fadjri waaw ne waaw kan moo laqatu kon ci ginnaaw petro ma ne la Timis googee booba nan la fa demee gis nga laaj yi le président Macky Sall gouvernement bi war a tontu laa la wax waaw waaw nga na ngir tontu kon ci waaw ma la gouvernement bi ci boppam war naa génnee kon liste ñan ñooy actionnaire yi société yee seen xaalis bi la toll loolay dëkk termine yéene kaay watu Sénégal day waaw ma la tuumaal nañ président Macky la wax ne daa jaawale boosam kon ak boosuk askan wi lee la def mar d'Italie lu ci toll juróom benn téeméer ci ay milliards ci pétrole beeg dañuy fas a porte plainte nag day kii di Alioune Sall laa xam le nanu ko Alaaji Malick ci tribune yéene kaay ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali ma ne la doxu ñaxtu bi la 14 ko amal neex naxari ak lu mën a am laa la wax ngir xeex wàllum démocratie kon fii ci suñu biir réew ak moom sa bopp kon di wàllum liberté gi waaye tamit suñu alalu réew ji lee ñu daal di koy sàmm laa la wax njiital grand parti yemu ca ndaxte nee gis nga gouvernement bi waaw duñu ñu may comité bi nga xam ne nag Abdoulaye Wade kon woowoon na ko président Macky Sall mi la xamal ne kon gañ nga élection yo waaw ma ne la benn woote la waaye benn woote boobee la mu mbalax ah mat na téeméeri galañ laa ilaha illa la l'observateur la moo ne Abdoulaye Wade day daa de man mi la maa ne ko carte leer na président mënatuñoo am 40 pour cent woowal président Macky nga félicité ko waaye Abdoulaye Wade xam ngeen lan la ma tonto dane ma duma ko def ay waay ay waay maître Ousmane Ngom ay Samuel Sarr ne li Ousmane wax c'est faux loolee nekkul dëgg la xew démb waxu ko de il a falsifié l'histoire waa lan moo tax tax ba maître Ousmane Ngom mi le bëgg a loo réew mi yëpp ne bu Macky Sall nekkee président ginnaaw yàlla moom la te moom Ousmane Ngom nekkul woon sax ca bale ba la wax bale ba ñeenti nit a fa nekkoon ca raw Abdoulaye la woon Sendiali Wade Mamour Cissé ak man Samuel Sarr ñetti généraux nag dugg si nañu armée bi ak gendarmerie guddi bi ñu xamee ne carte na day te la ñuy ci boppam moo ne nañ leen ko jaare ci palais bi ginnaaw ga la ñu jot ko Pape Samba Diop kookoo ko Pape Macky Sall Karim Wade ci boppam moo jël téléphone ba ne ko papa kii Macky la nii la demee Ousmane Ngom mii il faut mu dakal di sos di wax loo xam ne nekkul dëgg te gis nga maître Ousmane Ngom mii ci boppam mooy Lambert xel mi ba noppi soppi ay wax rek la ma falsificateur la Moustapha Diakhaté APR ci l'Observateur code pénal Ousmane Ngom day waaw def na déballage de réew mi quotidien ne ñi ànd ak président Macky Sall day waaw est ce que mën nañoo amaat nag am koolu dé ci maître Ousmane Ngom mi la mbir ma ci tribune yéene kaay ne est ce que sax ñun suñu démb day lu yàggul dara di ne Abdoulaye Wade demee ak ni Macky Sall ni la est ce que jar nañu ci dellu ah kay parce nag réew mi nekk nii rente nga góla jëm le déclare gaz beeg pétrole baa ngi ni la même bu sax am na ñoo ay opportuniste la seen poos a a a noonee la deuxième alternance bi amee bu doon am film la day maître Ousmane Ngom waaw mais mënu caa nekk dara lu dul zéro ci biir zéro yi laa la wax maître Ousmane mi lay mënu ñoo jàpp ci moom lenn lu dul ab ministre de l'intérieur boo xam ne day mës d'accord ay manifestation nekk nitu fitna laataa élection yi muy dóoree bàyyi mu siba ko ma judd ca lu tolloo fukki doomu aadama ak juróom ñaata seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma mbëkk ko auto a honneur et félicite Macky lii la tribune yéene kaay kon bind keroog tribune yéene kaay ne doom ja day di Karim waaw ak ndamam la ca France ke da ngay xam le ma ngay waajalem kon ca Paris tribune yéene kaay ne Modou Diagne Fada day ma ngay kon na ne tekki ndomba tànkam nag te groupe parlementaire ba wal fajëri ne njàng me njàngale mi day ah jàngalekat yu bëree bëri demuñu la sabab ni mel nag mooy yenn école nu mel ndox meeg ñax mi waaw dem naa ca lamb jë suñu lamb ne <laughs> loolu day eh, xam naa ne saf na ca làmb ja revanche am ak Balla Gaye leeral digganteem ak la dëgër 2 revanche su ëmm ak moom